bu amee defoon nañ ko daaw def ko daaw jëpp def ko ak yëpp dañuy faral di ñëw ñëw ziar si ñëw ci dëkk bu sell ànd ak ñu ci nekk ñëpp ñu ci toogal ñoom seen Cheikh Thioro Mbacké ak ñi jógee ànd ak jógee Dakar ñooy ziar si bopp bés bi ñu leen feddali suñu yéene ci diine bi yéene ci réew mi ak suñu yéene ci jàppale lépp loo xam ne day gën a jëmmal euh, euh, diine ji waaye day gën a jëmmal liggéey Sëñ Tuubaa mm-hmm. moo taxoon ñu ñëw bàyyee ko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 ñu ngi déglu ñu ngi suñu di wax ñu mbàkk ñu mbàkk sëñ Tuubaa ñu mbàkk jërëjëf mbàkk